islam da ko këtti ko ci diine ju ko ko ci ab xadaara bu fi jaaroo bokk na li koy firnde rek an nisaau e, shaqaiqu rijaal waaye nee na kon ñoom ñoo góor ñi ñoo bokk ñoo yem moom da ko lee atta yoma ko bañ lenn lu koy laal lépp li tax mu nefi fi nekkin wu jàkk mu gàll ko ci ay loos yoo xam ne buñ ko sàgganee yàlla lañ leen ko boo liggéey buñ ko taxawoo te rafetal ko mu nekk tuyaaba ci ñoom lislaam bi loolu buñ demee kërit borom bi tudde maye giñ koy maye mii saaqan xalida ngir wane ne képp koo xam ne jël nga soxna am nga loolu war ci moom dafa mel ne contrat boo signé ak sa borom boo xam ne boo ko sàgganee wala nga woyofal ko bu ëllëgee danga dajeek sa borom jox ko ay àq yu mat sëkk bu dee mbokk bu dee yaay bu dee maam bu dee doom bu dee soxna lu ci nekk lislaam àdduna ci jox ko ci cër boo xam ne mësee su ko ko jox ci la jiitu woon may ko mu sañ moom mu sañ a moom te histoire ne ku jox ba ñu ubbi lépp mel ne dañoo boyal ñëpp jigéen ba tey jii am na ci wàllu moomeel foo xam ne jigéen àggugu fa fi ko lislaam eggale sàmm ko it nag koy lor tax muuru gi mu waral soo lépp ndax ñi muuru di jaxasoo it lu ne ñu ngi koy daj lu ne ñu ngi koy gis lislaam nag bëgg jigéen ñoŋ bëgg jigéen aaru bokk na ci li tax mu terale ko yooyu yëpp war bare bare loolu lislaam ñëwee ne seen taraanga yu bari yàlla dafa leen ko bokk na ci taraanga ji gën a mag bu ñuy wax ku njëkk dugg ci lislaam ginnaaw ki yàlla yónni woon mooy jigéen yàlla waaye it alquranul karim ju tedd jii ñu yor muy wax yàlla des ci kaw suuf di jëmmal yàlla ci loxoy jigéen lañ ko aare woon muy sayidu ay xi ci loxoy soxnaam soxna aïchatu radi yàlla anha la mujj ne ci penkam ba wujj yàlla boromam ñu denc ko ci ab néegam mu dëkk fa ak moom loolu ci ay yoo xam ne comme lislaam yoo xam ne deesul waxtaane diine te waxuñu yooyu loolu it jàpp naa ne bokk na ci li nga xam ne taraanga joo xam ne daa wéy nag ñooñu noonu li lislaam di wéy it barab bu ne am na ñu fa jëmmal ñooñu di dox doxin yooya nekk kilifa mat ko sëkk ci taxaw diine jàppale ñañ àndal ba lislaam àgg ba àgg loolu taraanga la joo xam ne julli ñu waruñ koy fàtte waaye jigéen ñi nañu xam ne liñ leen di waneel ci àdduna lu wuuteeg li leen lislaam andil ay nax la lislaam rekk leen teral lislaam rekk leen jox ay wàccuwaay lislaam rekk leen yërëm lislaam rekk leen noppal loolu moo tax xam la bokk na ci yooyee jagle yu ko yàlla yu leen yàlla jox jaaree ko ci la am yonente bi alayhi salaatu wasalaam loo xam ne ñoom ñoo ko moom ngir muy teraanga ci ñoom bokk na ca yonent alayhi salaam bi mu daan jàngale di waare it dafa beraloon jigéen boo xam ne bu noppi soññi leen ngir rek baral leen xam ne ci ngeen bokk te kenn ëppalewu leen ci dund gi nag moo laaj ngeen am nu ngeen mel góor ñi am nañ mel bokk na ci li mu leen jàngale loon mas naa wax ne ci jàkka ji buñ bàyyi woon bunt bii jigéen ñi di ci jaar maanaam beral leen bunt boo xam ne ñoom lañ ko bàyyee ñu ci jaar ngir ku ci bëgg a ñëw ci jàkk ji mën a ñëw julli delluwaat te doo jaxasoo kenn kenn du jaxasoo yow doo am la wax nañ ne na Seydina Abdullah ibn Umar ba mu déggee loola ba ni mu génnee àdduna bunt boobu jaaratuñ ngir dëggale ko waxi yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon mel na ne su leen neexee du ñëw ci jàkk waaye nag ñu bëggee ñëw ci jàkk kenn du leen tere waaye taamu nañ sax nag wutal leen bunt boo xam ne seen bunt la doon ñu bàyyi leen ñu di fa jaar bi ci desit bokk na ci li ko yàlla terale den kenn du ko gét gaa ko jekki rek may loolu ci ay aadala la nit ñi di ko def rek waaye tegul ci diine am na soxna soo xam ne baayam da ko may ci sunna radiyallahu wax ko ko yonent sallam ñoom wax ko ko yonent bi daal di woo baayam ne ko laajal gone gi bu bëggee nga maye ko su bëggul bu ko may ca la gone ga door a wax ne nangu naa dama bëggoon rekk ñu xam ne yilifuwu noonu ba àgg ci ku ñu bëgg a may ku ñu neexee bu daal di jàng ci tara ñu teral jigéen la waru ñuy sukkandiku ci li xew ci waaqia di ci àtte diine yi am na loo xam ne aada la ak yuy xew ci barab waaye bokkut ak li diine santaane waaye diine moom dafa teral jigéen ci xeeti ter koy maye waaye ci mujjug xutba bi mujj def muy ci ci wadaa bokk na ci lam dénkaane woon istaw bi nit ñi jëf turu yàlla ngeen fexe ba dagan leen na bàyyi xel loolu kon bokk ci li mujj wax ak mbooloo mi dénk leen ñu bàyyi xel jigéen ñi sallallahu alayhi wa sallam moom yonente yëpp góor kullukum wax na ar rajul raain fi bayti waaye al maratu fi bayti zawjiha kon ñëpp ay responsable lañ ñëpp la yàlla di déglu ñépp la yàlla gàll ay ndigal yoo xam ne buñ ko rafetalee am ci tuyaa boo lëgee buñ ko ñaawalee am ci seen borom seen borom subhanahu wa wal maratu raayatun fi bayti zawjiha wa hiya masulatun an raayatiha ni waaye it yàlla bind leen ne seen seeni sentiment moom li ñuy jëfandikoo xel ba taxoon yontu ay salaam nuroo leen ak weer ci gaaw a tawe gaaw a loru ba taxoon rifqan riir dafa leen ndànk ci bu ngeen jëflante jigéen ñi seen misaal dafa mel ni ab weer weer boo ko yoree ci anam gu dëgër teeyoo day toj nga ñàkk loru moom mu loru loolu nag day jëmmal lu bare bari mbokk yi ci wàccuwaay boo xam ne jigéen am na ko ci lislaam bëgg ñu bàyyi ko xel boo ko seetloo it bët bi ko lislaam di xool ñetti bët la benn bi moo góor ñoo ci yem moo góor ñoo ci yem wa man yaam mina saalihaati min dakarin aw unsaa jigéen ñoo ci boolu yàlla foofu amul jaamu góor ak jaamu jigéen kenn ku nekk yàlla moo la sant dafa la nga nekk ab jaamam sant la digal la tere la foofu ku ci man rek yow yaa sa morom am wet goo xam ne nag góor la ca lislaam jiital mooy lu jëm ci kilifteef li ñuy tuddee barab bu ne du ñàkk nag koo say sentiment daa bari ngay am yërmaane lool fu ñagas fu laaj ñagas doo mën moo tax góor la yàlla dénk kilifteef ci kër ndax kilifteef daa laaj loolu ak dëgg kat la jiital moom la yorloo moom la sàmmloo moom la yorloo moom la sàmmloo ba bu tàgg woon a boroom këram sax doom ja kenn du ko sañ nangu ci moom ci wóolu góor guy dénk gone it day fekk nga am jigéen ju ko mën a dañ ci ñëw insha allah kon mel na ne am na foo xam ne jigéen lañ jiital am foo xam ne góor lañ jiital ku ci nekk foofa na la yàlla binde moo dëppoog la am foo xam ne nag ñoom ñaar ñoo ci am képp jàpp naa lu ma di bàyyi xel la su boobaa danañ xam maandu gi lislaam indi ak diggu doomu gi nga xam ne diine fekku ko ca tëraliinu àdduna fekk ko ci ci loolu buñ ko xamee rek danañ xam ne kon ku umpule diine mooy wax ne diine dafa woyofal jigéen wala da ko xaj nangam moo ko teral moo ko jox àqam moo ko sàmm moo ko suturaal moo ko yéet na jur yi nga xam ni gëm loolu nekk ci la neex bu ñu noppee it soppi leen ay jumtuwaay di leen jaayee seeni marchandise lañuy lañuy mujj ak ñoom waaye taxul jox leen war ma bëgg mu jar ñoom lañ fay teg di ko ngir bëgg ñu jaayal leen ñoo ñooñu aluñ leen ñu ko sàmmulu ah, lu islaam waxoon bu yàgg nit ñi xamuñ lu tax xam-xam ñëw na dëggal ko leeral ko bokk na ca muur yaram ay gëstu yu borom xam-xam saxal nañ ne am na naaj yaramu jigéen wenn tàngoor nu mu koy gaarale ci naaj bi am na xeetu canceru der woo xam ne di ko gaaral ci naaj bi lu yàgg moo koy waral loolu moo tax ñoom ñu war a bàyyi xel ne lislaam fi mu leen teg kenn tegu leen fa kon lim leen digal nañu xam ne lépp seen kaaraange la pour lu ñu bari jàpp nañu ndigal yu bari xatal la ak taral la wala kaw kawe la waaye adduna weesu na ko adduna du weesu mukk diine ndax yàlla mi ni moo xam alaa la man xalaq lépp ngi ci kanam dara ëmb ko ci kuy xamut luy ñëw ëllëg mooy tëralal nit loo xam ne bu dikkee du dëppoo ak jamonoom mooy lu waaye yi nga xam ne lu dox lu tere gis ne dëppoo ak ndax ñi ko tër lañu ci seen kanam lépp sax mënuñ koo gis kon mënuñoo xam la ñëwagul kon mënuñu fee tër lu dëppook di dox ànd ak àdduna dox lislaam nag yàlla mi ko moom moom àdduna xam fa àdduna tàmbalee ba fa mu yem mu tiim lépp kon lum ñu tëral loolu rek mu baax ci noonu ñu di ko bàyyi xel ci loolu lislaam jox na jigéen àq yu bari yi firndeel waaye bokk na kenn du ko maye ci lu dul nga joxe alal kenn du mayee jigéen maanaa moom ci waxu sax lu mu la bëgg-bëgg ay bokkam lu ñu la bëgg-bëgg mënuñ lu ko may te joxewu alal kenn wane ne du ko jële ci biir bokkam bi dooni muqaabil loolu it waatu nisaa ne nihla mën nañ leen caa may waaye nag na ci aqal boo kenn kenn nga xam sa loolu amul ab junj la nag ndax du alal joo xam ne dañuy jaay jigéen ji ndax nit mënu su ko jënd bee ërndal ñor na yàlla indi loolu àq joo xam ne kenn mënu koo xañ jigéen kon wuute nag jamono ya nga xam ne dañ leen doon maye nu leen neexee rek leen donnante nga xam ne nit ki sax bàyyam génne àdduna soxna yam bàyyi woon ku ci dul yaayam rek bu ko neexee jël ko ne maa ko moom daf ci lu ko neex islam ñëw teral leen fuñ ñu mën a nekk deesu leen jël te joxewu dara kum jërul dara doo am dara bokk na ci yooyu it ba ko yàlla bindee ba ni muy génn àdduna dañ ko war a dundal dañ ko war a yor loolu teraanga ji yàlla te doom war koo dundal su demoon màgg amul dara ci loolu it société bi ba itimal bu amee ñoo ko war a dundal waaye waru su ko bàyyi muy taxawaalu waru su dem ci mbedd tara ne daa du muy faj li muy lefajoo ñooñu ñoo ko ameel bu dee boroom kër la moo ko ameel soxnaam donte soxna see ko ëppale alal su ko ko mayit war na ko jox te moo am sa njab moo tax dund googu sax su demoon ba borom kër bi mënatu ko joxe borom soxna si sañ naa dem ñaan baat dem ci yoon ñu tas ab sëyam ndax day loru daa du te góor gi dundal ku moo amee ak xaalab jigéen dund nag ëmb nañ li muy lekk li muy naan ak li muy fajoo danañ romb ci téere yi ñu ne wax ne faju bokkul ci dund loolu ay xob doon booba kenn kon ne yaa koy defal sa bopp waaye bi nga xam faju nag alal la alal la am na yu lislaam waral ci jigéen yoo xam ne fajoo ko gën a woy ñooñ bañ koy wax doonutoon jamono jii boobu du faj yii waaye nit moo war a faj soxnaam bu faatoo moo ko war wutal càngaay ànd ak yor ko ci la bokk loolu mooy li dëgër ci waxi borom xam-xam yi yooyu it yàq yi ñu war a bàyyi xel la wari su ko sàggane ndax léeg-léeg nit ñi doxe doxin woo xam ne day wuuteeg loolu ba noppi léeg-léeg ñu bëgg diine te ji diine diine ne sori ca lool ko lool fi nga xame ne nit ki sañ naa bañ dundal soxnaam mooy su ko soxna si terele tere boppam ci lu dul ngànt moom jekki tere ko su boobaa sañ naa mel nañ ko waaye jigéen ku ko yor yaa ko war dëkkal yaa ko war wutal dëkkuwaay boo xam ne foofu it moo tax bàyyi xel la dëkk dëkkuwaay nag ci lislaam mooy lit defee ay appartement yu mat moom la nit ki ameel soxnaam ñun nag am nañ aada yu rafet yoo xam ne war nañ cee sant yàlla sant ci soxna yi mooy ki orlu loolu fet duñu fekk sàmm waaye nag nekkut àq joo xam ne góor gee ko moom day forcer nit ñi ne leen wenn wa nag wenn waañ neex na xari te mu wut noonu jigéen mag nongu loolu aw yiwu rëy la waaye néew na nga dem ci barab fekk ko fa it mel ne nit ñi nga xam ne nit yi cosaan lañ dëkk yu mag yooyu ci nga ko fekk waaye dëkki taax yi nga xam ne ak nasaraan jàpp na leen sax wàll nañ leen seedi jikko foofa ku fa góorgóorlu ba ñemee am ñaari soxna it ñaanante aada ju sañ bañ jigéen daa bokk ci li war borom këram te dëkkuwaay nag day mat yi ci aju yu nekk war ca ne bokk na ko yor yaa ko borom koddum tàngoor kon demeen at mu ne amel nga ko ñaari kodd jamonoy sedd war na am kodd jamonoy tàngoor war na am kodd saa bu yàqu nangam kër la war ci soxnaam jigéen ji moom jariñoo ko moo ko ci war waaye waru ko wutale boppam yu bari yi ñu wax léegi di wax ne kër na ngi toog ci kër gi góor gi dem wuti jox ko bu dikkee mu sàmm ndax kenn ku ne ci ñoom daa am lu la war loo xam ne boo ko bàyyee kenn bi ji ci kër yi ngir ne amuñ ku leen sàmm loolu la jur ñu tumuranke màgg ci tumuranke màgg jàppe seen bopp ñu yaay ndax dunduñ ak yaay ñu ñemee ko def ndax dajafe am na yoo xam ne suñ ko wàccee rek gis lor ji kon yooyu it ñu bàyyi ko xel am koddu nit ki moo ko borom kër moo ko ameel soxnaam moo ko sàmm borom kër di ko sol ci jaamu yàlla di ko xamal lum xamutoon di ko xamal lum xamutoon yar ko di ko taw ji di ko ifaaf fexe ba mucc ci mbaax gi gën da daara ja ñu àggale fa seenum njàng loolu bind yu rëy rëy la yoo xam ne jullit ñi war nañ caa xame lu bare bari kon nit wax ne yéen bokk na ci alxiwaama dañ ko war a saytu di ko aar di moytu lépp lu koy lor oro donc joxe ñaar ko àqam nit ñi nag yemale la ñuy faral di wax waaye lislaam maandu lay wax maandu ak yamale bokkuñ mbokk yi maandu mooy kenn ku lal sab walla takk soxna sart yu ngeen sartante woon ba nga koy jël lislaam dalay géttan ci nga sàmm ko lu ngeen di dagan leen bàyyi xel lool léeg-léeg nit dem ci barab di ngoro lu ne mu gàdd ko ko bañ ko joxee soxna sa yam waxoon yépp bëgg teggeen bépp sart boo xam ne daqoon diwut ak parce que sëy bu ko nit ki sàmmoonteeg sartanteeg soxnaam da caa war a wéy bis bis boo yàqu sax kenn gàllu ko saw loos am na dëkk yoo xam ne boo fay wut soxna dañ lay wax ne la la sabiqa wala laaxiqa du ma fekk kenn ci kër gi kenn du ma fekk boo bëggee ñi nangu boo bëggoo bi nga nga ne bëggoo loolu it nit day war a am fulla su ko jarul mu mu ko jaral bu ko jaralee mu xam ne jaral na ko waaye sartanteeg moom dem sarte ya kon teeg moom ba nga koy takk te safaaw na wut ak bi nga la waay góorgóorlul ba matal sart ba ndax al muslimuna ala shurutihim bokk na ci àq yi ko ameel boroom këram bum bum bum bum ko bàyyi ginnaaw bàyyi ko ci barab ci dul ngànt bu liggéey jotee na xëy liggéey waaye bu liggéey ba jeexee nag na ñëw toog këram soxna leen loolu du masuliya nit day xam ne ak njaboot la bàyyi saa yu génnee lu mënta ñàkk moo koy génne bu dee toog di waxtaan ak wettilante dafa la daf kooku sa njaboot ñoo ci gën a kon bu leen fa bàyyi ci lu dul lor di dem feneen bi ci desit ku takk soxna mu nekk ab séet bu dee ab janq lislaam may na la ah am na àq ci yow juróom-ñaari fan yoo xam ne na ma ab jeeti faro tàmbali sedd nag seddale yow mun walay la 24 heures yu ne kenn féete woo ko wala bu fekkee ne loolu arrangé wu leen la ngeen juboo lislaam du ko tere waaye na nekk ci maanu ñëpp tolloo bokk na ci àq jigéen amee su nekkee ci sëy ba mu yàgg mu yëg daal ñëpp sañ ne mu amul sañ naa fay alal dem tàggoog boroom këram soxna saabit ibnu qays ñëw na bis yonent bi alayhi salaam ne ko qays day may xebat ci moom du diineem du wal bëggu bëggu far ginnaaw ak ci moom na ma mën na maa tax génn salaam ne ndax man nga koo delloo dër dër ba mu la joxoon tool ba mu la ne waaw mu ko tef lal dër bi kon nit loolu nag li ñuy wax mooy koo xam ne sëy bi loruwu ci kooku la wax ne dem na ba mu yàgg rek mu doyal wala daal am na lu tax mu bëgg a bàyyi bëgg na noppalu sañ ji da nu mu ko wàcc mu fexe ba fay alal alal jooju bu waa day araam ci borom kër mu di ko jël ndax ginnaaw lor moo tax mu bëgg a tas moom dañ ko war a fay alal fay alal waru ko da ko waroon a wàcc ginnaaw day loru ci sëy bi yooyu ma tax xàmmee la bokk nit àq yi am bu bëggee seeti ay bokkam jigéen bëggee seet ay bokkam war wallahu la kufru dina lima kon am ay aajo yi farata it mën nañ dox di ko doxee loolu lislaam du ko tare kon loolu lenn la ci àq yoo xam ne am na ci yoo xam nit ñi bàyyiwuñ ko xel te jàpp ne lu ma ta bàyyi xel la ndax diine noppiwul ci dara te mooy ñun ñu bàyyi ne tër rek lor ci loolu it jigéen bokk ci li ko jagleel wutal ko kilifa amul jenn jamono joo xam ne jigéen day yilif boppam waamee doy am na kilifa gu ko war may du maye boppam ab jàmbur du ko may te mbokk ne fa loolu lu mat a xam na ci jamono ji nga xam léeg-léeg ay nit daje fenn bëggante rek rom romb benn waay ne ko maye ñu jigéen du maye bopp boppam ab jàmbur du ko maye te ay mbokkam ne fa loolu it mat naa xam lool kon kilifa jigéen mooy jiitu nga doom gis jaaduwut bu ko defoon it jigéen doom ji sañ na lànk bu fekkee ne jarul yoon bàyyi ci jiitu ak koo xam ne dañ la dénk ab xale bàyyi ab dénk la ko jox la lam ca sañu lépp mun la jox naa la ko ñooñu fuñ nekk bu ñuy mayee doom ja keneen waru koo mayee te ñoom ñu ne fa bu ñooñu jàllee doom xam ne jigéen sax xëy na bu amagul doom lañuy wax ne bàyyi may kilifaam waaye bu xasee am doom doom ji baaleex nekk mag mooy doon kilifa ak yaayam buñ ko waree maye moo ko war a maye bu ñoo jàllee ay mbokkam ñi mbokkal ndey ak baay ñi mbokkal baay ba ci ay maamam ay baayam yu ndaw ak kuñ ko dénkoon mu yor ko bu loolu lépp amul nag ñu dem ci yoon yoon sañ naa maye koo xam ne ay mbokkam nekkuñ fi bu fi loolu lépp amul nag ci la ñuy door wax wilayatul islam al wilaya al amma jigéen joo xam ne ci misaal ab ay ay yéefar lañ moom mu tuub dugg ci diine ci barab boo xam ne lislaam doxul fa ak nguuram jigéen ñooñu buñ ko bëggee mën nañu dem ci jàkka ja wala may kenn may tur lu ma ta leeral rek mooy nga xam ne ay soxla ay jullit xam ne ñoo mënu leen ko may mu wér ku ne fii di bëggante koo xam ne du jullit téléphoné ak kilifaam ne ko may ma il faut ci ca mu dëkk yoon woo may la ko demal dem seen église ñu may la ko waaye doo dem ci ay jullit ne yow ñu la ndax ñoom yilifuñ ko boo xam nag dugg ci ay mbokk bi tuñ ko boobaa nag bu fa kilifa diine nekkul mën nañ ko maye ci wilaayatul islaam al amma yooyu it yi mat di bàyyi xel la ci yu mel nii waaye ñu bàyyi xel na jigéen dal amul fenn fu muy yilifi boppam ba ci kilifa gu jigéen goo xam ne sax dañ koo dénk ak njaboot mu leen yar way juróom ne ko jox naa la kilifteef gi ñooña ku ci am gone gu war a dem kër boo koy mayee du ko mayel boppam day wuti góor gu matal sart yi sarti kilifteef doon mag yi ci daje yëpp daje ci moom mu ne ko fasal ma ko waaye du ne moom soxna si mooy fasal sëy bi keneen mën naa jox ndigal kooko ñu fas ko nag loolu it bokk na ci war a xam lépp ngir aar jigéen la ak taxawu ko ngir aar jigéen taxawu la ko bët biñ ko war a xool mu bët boobu buñ ko ne jigéen moo fa loo xam doon ku ca ñàkk seytaan di gise kilifa seytaan nag ku mu yilif dafa loolu sa faat moo tax loolu mat di bàyyi xel mbokk yi am nag yeneen atte yoo xam ne it nag lislaam tër na ko ngir aar jigéen ak sàmm ko bañ ko ko noggutu te loolu amoon la ci jamonoy njëkk ja naar yi daan nañ mere jigéen seen soxna daa di wax ne duñ ko yor duñ ko fase dañ koy fase bu dee ba idda jawaaji jeex rek ñu fay la ko mu del siwaat ñu yoraat ba mu neex leen ñu faseeti nga xam ne du doon soxna du doon ab jàmbur ba lislaam dikkee la wax ne ab talaaqu marrataan ngir saafara loolu ku fase faseeti ñetteelu sa jigéen ci yóotu bàyyi ko soo ko fasee ba mu waaj iddaam di waaj jeex nga jëlaat ko doo ko yor doo ko bàyyi ak noggatu la woon lislaam moo ci musal jigéen moo ko musal ci nit ki daan mel rek ne sama soxna ci yàlla defula ñeenti weer la lislaam di may bu ñeenti weer yi jàllee nga dellu ginnaaw ci li nga wax ngi li nga giñ nga kafaara ko joteeg si soxna wala yoon tas sëy bi waaye duñ la bàyyi nga di ko noggatu noonu doo joteeg moom bàyyi ci banque te yow mën naa am yaa nga am yeneen rab yooyu faje soxla te moom yow la am moo tax ilaa doon lu am solo luy aar jigéen ci ay yuñ ko daan ko wax ne loolu borom kër bi da koo yërëm ndax nàmp gi bu dee jaxasoo moom mën naa nef te mun doom ji xiibon moom mu xiibon tax nga bëgg koo yërëm ne ko dama lay bàyyi ba nga feral bu dee lu mel noonu duñ ko jàppee bëgg koo lor dañuy jàpp ne ku ko bëgg aar la amma bu dee bëggoo lor rek moo tax mu wax ko lislaam du nangu ñeenti war yi matee soxna si sañ naa dem ci yoon góor gi dellu ginnaaw ci lim wax mbaa yoon ne ko tas naa sëy bi mu jeex loolu it bokkoon na ci àtte yi nga xam ne lislaam defal na ko jigéen muy am solo yoo xam ne mat naa bàyyi xel mbokk yi lool donte nag jigéen ñi bu ko neexoon toog di mu ñin nag loolu mbirama daa am yoo xam ne lislaam da ko bàyyi ci loxoy jigéen am na fu nit toll yenn yi doon tul yitee mën na ko muñ bàyyi ko su ko nangoo di bàyyi xam na joo xam ko buñ ko bëgg li koy mu daal di dellu ci ay bokkam bokk na ci àq yooyu itam jigéen saa bu nekkee ci sëy ba sëy ba jeex mu iddawu néeg bi mu nekkoon di fa sëy fa la war a des ba ba idda ja jeex njuumte lu rëy la nit ñi def ñaare néew na fii kuñ fase tey ci suba mu yandu fa wala ñu fase ko ngoon mu fanaan ci kër ga te laa tuxrujuhun na la waxoon tekki it wala yaxruj na yàlla tere na nga fase soxna génne ko sa kër tere na jigéen ñu fase ko muy mer di génn kër ga dañoo war a toog ci biir kër gi bay daji jeex bu dee fasem payli la góor gee war a wéy di ko dundal nam ko doon dundale bu jaar dal ci néegu moom waaye àq àq soxna si yëpp na mat booy daji jeexee nag bu door dellu ci bokkam kon mel na ne su jigéen tase ci sëyit war tas sëyit tekkiwul mu génn ci këram donte jàpp éeg bi mu doon sëy koo génn ci jeex donte day pata nga xam ne génne jox du génn waroo ko génne wóor ta ba génn loolu it bokk na ci liñ ñu war di bàyyi xel ci xam na ci atte yu am solo yu ñuy juum di ca doxe nu bokkut ak ne lislaam santaane la bokk na ci yooyu it lislaam aar gum aar jigéen ci bu njëkkoon nit day mar rek soxnaam rek ne ko wodde naa la kumbas diw tudd koo xam ne araam na ko ba faw mu nuróole kook soxnaam xam ngeen ne suuratul mujaadala xad sami allahu xawla allati tujaadiluka fi zawjiha saar woowu soxnaa taxoon yàlla wàcce boroom këram daa def ko zihaar mu ñëw jàmbar ko yonent ay salaam alxuraan wàcc àtte leen ne loolu ci kabaa'ir yi la bokk yor soxna ba mu neex la rek xëy ne ko sumal na ma tee diw te diw mooma di ko la araam ba faw loolu ku ko def bàkkaar bu mag la munkar la min al qawli zuur la li nga wax amut génn bu doon léegi dañ koy woorloo ñaari weer yi mu toftale su amee ngànt ci woor mu dool ak gore leel juróom benn fukki miskin goreel jàmm moo ci jiitu woon jàmm amatul loolu bokk na ci li wane aar gu lislaam aar jigéen wàcce ci moom alxuraan defako wax ne lii ñu ko def tooñ la kenn wërta jëflante moom jëflante bu ñaaw bi loolu yit bokk na ci li ñu war di bàyyi xel baax a baax zihar moom it xëy na bariwut lool dana di am ba tey nag ndax ci yeneen barab jaww ji barab bu ne am na nu ñu ko fay waxee dana doon bu leer naññ dana doon boo xam ne aw kinaaye la waaye lu ci mën doon nit su ko defee jub loolu moom mu fekkee ku man a woor la bu wéradee ba mënta wor nag ñu door koo leelloo juróom benn fukki miskin ku di mu jox la mudd ak ñaari sulu si mudd maanaam lu mat kilo ceeb ak lu teg kilo ceeb ak lu jege cinquante grammes mu doon fase mu dem waaye bu ko takkaatoon it balaa sañe jotee moom daf kafaara gi moom daal lu ñaaw loo xam ne lislaam da ko ba ñaawlu ko ba képp ku ko def gàll na ci sa kaw ay daan yoo xam ne doo sañe jotee rek soxna si doo sañ a bànneexu ci moom benn xeetu bànneexu te defoo li mu wax faaw wax jàpp naan lu mat di bàyyiloo xel mbokk yi la ci jamono ji nga xam ne nit ñi noonu la ñuy jëflanteeg ñoom saa bu ñu maree lu ne mën nañ ko wax bi ci des it bokk na ci li ko lislaam terale fase lislaam day wax ne léppam jidduhoo jidd wa hazluhoo jidd caaxaan amu ci fase soo xam ne suñu wax la nga dama doon kafak yooyu jëmu ci te kaf jëmu ci yooyu moo tax nit ñi nañu téye seen soxna yi loo xam ne boo ko fasee boo doxee tuuti rëccu ko di lay ay lay lislaam xamut yooyu day jàpp ne fase nga ko te nag sunu kilifa yi fii ñoom dañoo wax boole ci ne fasem jaahil batta la bare na loolu ay kilifa fii ku fase soxna boo ko bëggee fay la ñu bañ loolu lañ jàpp ñoom fasem jaahil batta la ndax ab jaahil xamul ci fa saa yu meree bay tàggook soxna si tàggoo gu sax dàkk la bëgg loolu la yéene te loolu mooy battal borom xam-xam moo mën a xam ne naa ko fase ngir yar ko su delloo ca kër ga balaa ay daje jeex boo ko ay mbokkam waxtaanee moom su ma ko faylee bu del see dana yaru loolu borom xam-xam moo ko man ak ko ànd ak sagoom ab jaahil nag ñaare balaa fase day mer te bu meree doyal na jamono yooyu lépp day dox tuuti nag rëccu léeg-léeg mu dox tuuti rëccu bëgg a dellu ginnaaw ci la mu waxoon foofu lislaam bi day bañ moo tax ñu wax ne la man kat maa ko fase Euh, nangam dañ maa sonal dañ ma nangam loo mer mer ànd la sa sago ginnaaw xam nga ne boo ko ñàkkee wutiwaat ko fexeel bu ko ñàkk waaye ci lislaam nag sàmm na jigéen ba kenn du ko doy dal noonu boo ko ne fase naa la fase li tudd ko te bu xasee met ñetti fase sañatoo ko fay li fii ak amul baax da sow ji yàlla dogal mu am beneen borom kër yàlla dogal mu tàggook moom iddaw ba idda jëmat nga door a ñëw ngorowaat yaa ngi ñëpp ngeen yem ci loolu it bokk na ci limata mata xel mbokk yu baax bokk na ca it yiñ mata atte yi lislaam am ci ji saatoo ko xam ne ne mooy ci idda rek ci boppam ci taraanga jigéen la bokk ndax boroom këram faatoo wala mu tàggoog boroom këram faw dana iddawu door a sañ dem feneen ndax bu idda bu amutoon luy am nit ki tas sey ëllëg mu dem sëyi feneen ñu toog ñaari weer ab ëmb feeñ ku jur doom ji am lënt lay doon moo xam ne du leer mukk lislaam nag yooyu lay bañ moo tax bu nit amee soxna ba tàggoo moom faaw nga am diir boo xam ne dangay toog ci benn barab te mën na bàyyi xel idda buñ koy wax jigéen ji iddawu du fanaan àll naa nit fu ba tëgg xam ne islam mën na ko doxi bu dee kuy liggéey wala muy jàngale wala muy faj man naa dem faji waaye nag na ko jant sooy këram jigéen ju idewu du tukki du fanaan àll tee nag cay bopp yére yoo xam dañ koy taaroo loolu ma iddaw mooy teñ ji da koy booleeg idda ji ñaawlu ñeenti weer ak fukki fan yoo xam ne du fanaan àll du tukki te nag day boole ñaawlu bu dee kuy iddaw fase kese moom kenn santu ko mu ñaawlu safaan bi kenn lañ ko sant dañ ko bëgg muy taaru moom ndax bu dee fasem pay li mën naa am xelum borom kër bi nemaati mu jëlaat ko waaye bu dee ku borom këram faatu nag dañ koy sant moom mu ñaawlu ba ñeenti weer ak fukk ni mat loolu it li mat leeral mooy fii ay aada da cee laxasu yu bari jigéen juy gis lu ne booleel di ko takkaloo lu ne di ko takkaloo bopp bi anam goo xam ne jigéen nañ xam ne ci biir këram ak njabootam muur boppam waru ko muur boppam nga ko war rek bu ko ab jàmbur na day gis waaye moo ko doomam mook borom këram daf bopp neen terewuñ ko kon buy génn wala ab jàmbur dugg ci kër gi lañ koy sant mu muuru waaye ñoom jàpp nañ ne yow dong boo demoon ci néeg bi it takk sa bopp tegale ko ngelaw du ko gis déedéet demul noonu taaru lañ ko tere bu mu toilette bu mu xeeñoo taal ay cuuraay ci néeg yi waaye day sangu ba set di sol ay yére yu set toog nag waaye bu mu takk ay takkaay moom loolu rek mooy teñ li ci des nag lañ doon diggal ab jullit bu jigéen lañ koy dig axoo jullit di wax buy war jullit loolu ci liñ sant te li tax xam baax nag mooy nit bu xamee day noppalu bari na ay coono yu ñu teg jigéen bu ñuy tëñ ji bu doon fukk juróom-ñett yëpp seeni aara lañ ko teg waaye du diini buñ ko xamee dañ bàyyi ak nuñ koy ne nga jëf loola la des nag nga xam ne aada la amul njëriñ bari na ci yoo xam ne nit ñi ragal faatu moo leen yóbbu ci yu bari ñu koy def dagg ci sagaru euh, mbubum ko faatoog moom lay takk ci bopp beeg lu ne nañ koy tare loolu nag nañ xam ne bokku ci moom waaye mooy li ñu wax rek euh, teral jigéen jàng ci ndax boroom këram faatu na ñu xëy xëy maye ko feneen loolu ci am xelam rek bu dee koo xam dañoo bëggante woon lool mën naa yàq moom lu bari moo tax lislaam aar na ko ci toogaloo ko ab fan ay fan yoo xam ne xëy na bu jeexee mën a miis mën a dellusiwaat ci àdduna dund xam ne àdduna la mel nañ fi nekk di dund ak di faatu waaye sàmm it bu ci njaboot soosoo ñu xam ne kan moo jur njaboot yi waaye bu idda amutoon doom dana juddu ay nit di ko xëccoo kii ne maa ngi bàyyam ba ma ko waccee la ko yor toppoon kii bi ma ko takkee la la ko dal dara du leer. waaye ni ko lislaam santaanee nag ku ci tënku moom day leer nañ doom ju judd rek danañ xam kan mooy baayam bu fekkee ne am na baay bu ko amut ñu xam ne amu ko ci charia loolu it bokk na ci limata bàyyi xel mbokk yi baax a baax bokk na ci it yi ñu war a bàyyi xel lislaam doxe ca doxeen wu am solo wu am njariñ mooy li ñuy tudde xadana gone doom kan moo ko yor liñ baaxoo gis fii jigéen bu nekkee ci kër boroom këram doom jene ci seen biir moo ko yor waaye ñaare bu ñu wala seen diggante naqar rek ay bi day doom yi yooyu nañ bàyyi te demee noonu sañ nañ ko joxe ci kaw ñu déggoo ci waaye bu déggoo amut am na ko lislaam wax ne moo war a yor doom ji am na ko lislaam wax ne moo war a yor doom ji di ko toppatoo di taxaw ci mbiram li ko tàmbalee ci ay addu baaleex bu toppatoo la joo xam ne yaayee ko moom bu dee doom ju jigéen bu juddoo ba ba muy dem kër toppatoo ba yaayam la war ki di ko teete di ko xamal àdduna tolloon ngi di ko dundal ñu bàyyi loolu baax a baax bu fekkee ne xale bi amul alal baayam moo ko war a dundal ndax nit ku ne yaa war a dundal sa soxna bu ñu amut yaa ko war a baaleex ju jigéen yaa ko war a dundal su amut ba ba am borom kër sa yaay ak sa baay bu ñu amut yaa leen war a dundal loolu àq la ci ni ku ne moo leen war a dundal dund nag nañ koy waxee jàngale it ñu bàyyi xel foofu ne mën naa doon bokk kër gi joxe aw yi la na ku ñu am lu ñu waxaale ci xam ci alal juboo ca weeru dee nga jox ko ko wala ñetti weer yi ni wala ay gis gu ne la lépp xeeti lu ñuy waxaale ba juboo ci la rek waaye mën naa nekk hmm? yor googu ñu nañ xam lislaam daa ko teg ci ay loxo waaye nag daam am ay charte du caagee ne ku jóg rek ñu jox la gone am na ay charte yoo xam ne charte jigéen ju war a yor gone la charte yi faw mu day ci moom yoo xam ne gi war a yor day yor gone jiital danañ àgg foo xam ne góor gi la sant ne ko waa yaa war yor xale bi waaye ci kaw sart yi ki yor xale day ànd akum xelam àndut xelam doon yor wér xel kenn du ko jox gone ndax moom ci boppam dañ ko war a toppatoo na fekk it mu man ko wér gi yaramam barab bi mu nekk may na ko mën a yor xale waaye ku wéradi ba tëniwul xale bi kenn du ko jox gone am diine diine dara ji fu mu toll ma ngay def yaramu neen ma ngay jaxaso ñoo xam ne kenn jubu ca ñooñu kenn du ko jox xale bokk na ca mu nekk ku amum xel mën a mën a soppandiku ci alal nga xam ne boo ko joxee alali gone yi dana ko mën a téye di ci def farata lu dul farata mu waaye koo xam boo ko joxoon dunu weer jeexal ko ci fukki fan kooku dis ko jox xale doon koo xam ne it yorut wéradi goo xam ne dañu day wàlle waaye ku yoru wéradi guy wàlle day jox ab xale kon gis ni lislaam ni mu fonke nit yépp la ko bàyyi xel nit la diine ndor waaye woon tàbbin si alxaan wax lépp la wax lu luñ ci càmbar jàngal ko rek gis njariñ la bu dee góor nag sart yi ñu sart ci moom bu waree yor xale bokk na ci na am jigéen ju ko yoral na am soxna wala ba am mbindaan moo xam ne moo ko yoral xale bi la ci lépp mu di ko def waaye góor am ne yorut jigéen dee su ko jox gone donte mooy bàyyam dañ ko ne yow kat yaa ko waroon yor ci sharia waaye sart yi mëtaloo ko il faut nga am soxna wala nga am jigéen joo xam ne li war ci gone gi ci toppatoo nga xam ne jigéen a ko man faaw nga yor jigéen ji ko mën a def ñu doon la ko jox gis nga foofu it lislaam jigéen la fi bàyyi xel ndax gone ni mu bindoo jigéen rek moo ko mën a dékku yàllaa ko mooñaale noonu ba nga yi muy def lépp lu mu bari ay jooy yëpp jigéen ji mu xolam day sedd amul ci nun genn góor goo xam ne ñetti waxtu yi mat mën na koo mën na koo gérer ay gone ki jooyam yi muy def ñëpp jooli bare rek nga ne woolu yaay mu jël doom ji te yéen a ko seq loolu day wane ne daa am wet goo xam ne yàlla moom la ciy déglu moom la mooñaaleel yërmaane jooju man koo dégg ko ak lu mën a def moo tax kenn waru koo xañ kenn waru koo xañ kon góor gi ngir mu mën a yor xale faaw day am jigéen ju ne ci wetam ju ko yoral te it na nekk aasib ci gone gi na doon mbokkam moo xam ne ci gañu lañ bokki wala mu nekk mbokkam ci wàllu yaay ñaar rek waaye bu dee jàmbur boo xam ne yooyu néew ci moom des ko dox gone bu dee jigéen ji nag sart nañ ngir mu yor xale bu mu am boroom kër boo xam ne jàmbur la ci xale bi na xale bi doon maxram ci moom it te bu mu am boroom kër bu doon jàmbur maanaam tey yaay bu tàggam yaay goo xam ne ab jàmbur la ci xale bi waaye bu sëyi woon ci koo xam ne mbokkom xale bee dañ ko bàyyee doom ja bari li am ci kër attewukaay yi nag ab sëy am ñu dem coowoo ca gone ñu day jox kenn loolu nañ bal ne lislaam am na lu mu ci tëral loo xam ne ku ko fi bàyyi rek la nga def bàkkaar lay doon gone jigéen a ko yor bàyyi koy dundal moo ko war a yar bu yar jotee moo ko war a jàngal bu jàng jotee waaye yor gi ak toppatoo gi moom yaayam la war bu fi yaay nekkut ñu tuxu ci yaay yaay bu fi yaay yaay nekkut ñu tuxu ci yaay ju ndaw noonu lañ koy toppee ci wàllu meen day mel ni moo gën a lëng fii ngir euh, doom ji mën a ñoŋ mën a àgg fi nga xam ne fa lañ bëgg mu àgg fa ci ay taxaw moo ko fa mën àggale kon yooyu it bokk na ci yi moo tax bàyyi xel lool mbokk yi ci suñ jam yi nga xam ne nit ñi ci ay ko dàggu jox wala jox nangamam bu fay tum lu leen di ci xew ak mbokk di ci gën a yàqoote jaru ko buñ tënkoo ci diine rek noppalu kenn ku ne la la diine jox nañ la ko jox la la diine jox nañ la ko jox suñ am jàmm suñ bëggee am jàmm loolu it bokk na ci li nga xam ne bokk na ci li jullit ñi war a bàyyi xel saa su ne donte euh, jaxasoog ñeneen ñi dañoo yóbbu ci ay aada yoo xam ne du suñuy aada dëppoo ak suñu diine ba tax ñu leen cee roy te loolu ñooñu du ñu roy waaye mbokk yi ñooñu du ñu ay royuwaay kon nag fexe ba roy ci suñu royuwaay loolu am solo la lu am am solo la mbokk yi muy yoo xam ne it mat na bàyyi xel lislaam it ci fonk jigéen bokk na ca euh, soo xam ne sànq idda ji ñu war a daf buñ ko fase waaye fase moomu yëpp lislaam da ta bàyyi xel loolu jigéen am na xaalaat yoo xam ne kenn du ko ca fase boo ko defee def nga lu xaraam wala def nga lu ñu sib te dañ lay force sax léeg-léeg nga jëlaat soxna si jigéen ju toll ci gis baax nga xam ne wér ak wér di la kenn du ci fas soxna kenn du fas soxna jamono joo xam ne gis baax boo ko defee def nga lu xaraam kenn du fase soxna na te fekk xëy ah xëy nekk ak guddi fanaan moom xëy wàcc ko yow bëgg booy fas ci ndax léeg-léeg mu nekk saafara ndax léeg-léeg ab digganteem àgg foo xam ne tàggoo rek moo ca moo ca moo ca moo ca gën ndax buñ ñu tàggoo wut la muy jur lu baax waaye boobaa nañ tàggoo ci jàmm fa imsaakum bi maarufin aw tasrixun bi ixsaan loolu lislaam jàngale yi téye bu rafet mbaa bàyyi bu rafet kon ku bàyyi bàyyi bu ñaaw rek da xëtt ndigalul sa diine ji lislaam lislaam daa santaane bu ñuy bàyyi nañ bàyyi bu rafet santaane bu ñuy bàyyi soxna sax nañ ko jox ab yóbbal mat leen yóbbal dem ne ko lii bu di ko loolu nag koo xam doo fase soxna mu bëgg a jël ay bagages am nga nangu bagages yi ne ko bagages yi dem loolu ci wàcc bu ñaaw la bokk mbokk yi fase nit nangu bagaas yaa ngi ko wutaloon ba mu nekkee soxna ne ci kër yi moom ko nga dong ko may te gor du may di nangu kon bu ñu doon dell ci diine mbokk yi dañ noppalu lool mbooleem yi jàmbat ci kër yi ak lislaam koy jàng jigéen lu am solo la mbokk yi ndax bu ñu xamoon te jàngal leen diine laa wax nag moo ci jiitu bañ xam fi leen lislaam teg ak lim leen sant buñ koy def dañ koy def xol bu sedd xam ne jaamu yàlla la tuyaaba la ngir kenn mooy tax yee leen ndax dañuy xam bala nga leen ko wax taxawaay yi war ci njaboot gi danañ ko mën ndax dëgg la sakkan lañ doon jigéen sakkan la li taskunu ilayha la alxuraan wax kon toog ci kër gi su borom jaaxle mu dalal ko defal ko liggéey indi fi mu sàmm ko ba dee su ko yàq ñu jariñoo ko te du yàqu loolu mooy wartee fa kooku nag kuñ jàngalut yarul la mënoo ko am na ñoo xam ne loo indi ne ko weer la bu weer wi xaajee mun la jeex na njaboot gi dañuy seetaan di dundee ñoom noo xam ne ñooy tax njaboot gi nañu war a mel du ñu mel ndax yar ci aw melow moo gën a mat ëpp doole yar ci ay wax di tere gone gi saaga di ko tere def yaramu neen te yaw di ko def du ko mën a bàyyi te loolu lépp nag ñàkk jàng la damay faral di wax man ne li lislaam santaane doom bu junna ba lekk jigéen ñu xam juddoo foofa bala caa góor a jot bay nodd ak liqaam fekk na mu dégg lu bare bari ci digg diggante bi bu fekkoon nag jigéen jëne foofa ka koy dooñ mooy nodd liqaam gone gi njëkk a dégg tawxiid incha su màggee ndax wéetal yàlla ma waral bu ñuy tudd ñu di ko yee salaat ngir bëgg rek tawxiid sax ci xolam gone goo xam ne nag ay sarxo ay saagaak looñu la dégg toog ay gis door a dégg kalima tawxid su su su su dee bokkaale yàlla ak di wax yàlla lu waxuwut wërta jaaxal nit ñi ndax dañ koo jaarale fañ ko war a jaarale kon am na solo loolu ñu yar jigéen yàngal leen dana tax li lislaam bëgg ci ñoom ñu mën koo def euh, liggéey bi ñu leen di liggéeyloo ci xeet wi ñu mën koo liggéey nam gën a mat mat liñ doon jigéen ñu jag mooy jagal àdduna Sëriñ Tuubaa yàgg na ko ñaan wal tajaalanha yaa ilahi saaliha talidu man yaamalu baadi saaliha wa zawjatan saalihatan tuinu ala tuqa wal birri yaa muinu kon jigéen ju jaar jag mooy defar kër histoire yàgg na ko jàngale sunu yaay Khadija radiyallahu anha taxawaay yu mat sëkk wax naa ginnaaw ne moo njëkk a dugg doy na ko sharaf moo tax yonent yàlla muhammad xam ne ab yonent la ba mu nekkee ci xut ko fu wax ba si jàpp ay jinne ko jàpp wala daa sànk moo ko defal dalal ko xamal ko ne ko yow li ngay def ci lu baax li ngay dimbulee ab safaan du sa kaw ànd ak moom dem ci waraxat nawfal nañ ko xame mu nettali ko mu xam xamal ko ne yow la doon dikkal Moussa ñoom moo la dikkal yàlla dala tànn nga nar a nekk ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam taxawaay yu mel noonu jigéen ju ju ñu taxawu moo ko mën a am bu xamee leelu yu bari xew léegi nga xam ne dañ koo sànni fële di dund ak lu ñu tuddee ak taaxe jàpp ni àdduna léegi sëy daal dalay tardeel jigéen ñi yàlla dañ bind ngir ñuy sëy jigéen yàlla da ko bind ngir muy sëy ak di jur ay doom tasawaju al walud al wadud fa inni mukaafirum bikumul umam lañ jàngale woon buñ demee ba jàpp ne njurum doom nag defaloo ci jigéen te yàlla bind ko ngir loolu boobu ëmp leen suñu bopp yooyu yëpp nag ñàkk xam la kon day indi war war jàpp jàngal jigéen ñi am na solo ñu xam ñooy ñan xam lu leen yàlla doy ci kaw suuf ba yitte ju ñuy def it ñu jiital ci yitte yàlla jooju fii yaa ngi am wér-gu yaram fii yaa ngi ànd ak sa jàmm di jur ay doom doom du bari ndax doom yëpp yiw lañ doom bu juddu woon ci saa faatu yit tuyaaba la ñeel ay way juróom bu yemal xeame it saam nee na ku faatule ñetti doom doo tàbbi sawara seraat boo jaar taxilatul xasam rek sa faaw nga dem àjjana ba mu ko waxee saaba ne ku ba ku faatule ñaar mu ne ñaar kon lépp aw yiw la waaye nag nit ki bu xamut nit ki lu mu xamut bañ ko lu mu xamut noonu ko man jahila shay'an ada al insanu aduwwun li ma jahil moo tax xam am solo ñi war a xam nag jigéen ñi ci jiitu ndax bu ñu xamee njaboot gi danañ xam te bu njaboot gi xam xamee àdduna jat te bu waaye yii ñuy wax yëpp danañ ci mucc insha allahu taala loolu jàpp naa ne mbokk yi war nañ ko bàyyi xel baax a baax ci jamono yi nga xam ne suñuy noon ñi ngi jël seeni ngànnaay yàq àdduna gëmloo génne leen seen kër yi génne leen seen sëy yi tàggale leen seeni borom kër jigéen nag sharafam moo yooyu ne ci këram woofu njabootam taxaw boroom këram saa bu ñàkkee yooyu rek ñàkk na sharafam te bu dajee ëllëg yàlla boromam dana ko laaj am nañu rewaay yu baax yu mag ci fépp ci démb ba tey soxna ay du sànq nga xam bi ko bàyyi fukki at mu dëkk ci kooku royuwaay la jëmmal lu bari it nag daa ko faral Aboubacar faatoo da koo ñaan ñu denc ko fa mu dend ak baayam mu nangul ko ko bi ñu jamee Seydina Omar mu yónnee ñaan ko ne ko daa bëgg mu denc ko mu si soxna Aysa mën nañu yóbbu sama faatoo di teraanga ju ju may wax nañ ne ba bañ fa dencee Omar la wax ne dootul summi ci néeg bi ndax ab jàmbur léegi muy Seydina Omar ab jàmbur la ci moom kon du summi ci kanam mbokk yi ana kooku ak jigéen ñi summi ci mbedd mi def mu ne lu neex def ñoo ñooy suñu rewaay te ñooñu nag am nañu misaal fii ci Sénégal ku jàng taarixu Sénégal xam maam Asta Waalo way juru soxna Jaaratullah way juru Sëriñ Tuubaa